seen émission bii di salon d'honneur ñu leen di remercier di leen remercier bu baax a baax ci seen safoo waaye tamit ñi ngeen toppee émission bi def ko seen émission bopp tey di dimanche ñuy waxtaanee lii nga xamante ne mooy sport rawatina lii di làmb looloo tax ñoom ay invité yu am solo invité yu màgg ñoo xamante ne nekk nañu ay acteurs clés ci li nga xam ne mooy làmb dinañ fi dalal ki nga xam ne mooy euh, président CNG bu bees bii di Ibrahima Sène Doudou Diagne Diecko tamit ci plateau bi waaye suñu confrère di Malick Thiam Doum tamit mi ci plateau bi mais balaa boobu ma bàyyi kii di Mamadou Biteye di sama co-présentateur mu ni koy nuyu di ko sargal. maa ngi lay fay euh, Khady silla di la ziar bu baax a baax di la tatagal di euh, kontaan lool nag ci euh, jotaay bi ndax tey jii mun naa wax ne jotaay bi dafa ala daw me li tax ma ne nag dafa ala daw me ci kanam tuuti dañu ci xam dara ndax mhm. ñi nga fi lim ku ci mel ni rek Ibrahima Sène bi nga xam ne day doog jot nag li nga xam ne rek moom moo di CNG bi di ko jiite waaye itam ki nga xam ne moo di Doudou Diagne Diecko bi nga xam ne moom moo jiite amateur yi moom itam dafa nekk ku am solo ci làmb ji rawatina nag suñu naataango bi di Malick Thiandou bi nga xam ne yàgg na ci làmb ji lool di ci yëngu euh, kon day nekk waxtaan woo xam ne dina ala doome waaye nag euh, ci euh, plateau bi itam samay naataango ñi ngi fi mhm. ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu làmb jëm ci wàllu sport ñi ngi fi ci kanam tuuti ma ñëw ci présentation mais dama bëgg mhm. laataa ñuy dem ci sama naataango yi ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan yi ñu nuyoo ak mbokk téléspectateurs yi ñu mhm. tàmbalee ko ak ci ki nga xam ne moo di Ibrahima Sène mi nga xam ne moom moo jiite lii di CNG bi ni nga waxee boo amee gan da koy sargal looloo tax ñuy njëkkee jox ñi nga ñooy suñuy invité parole bi monsieur Sène nga xam ne ñu bari dañ koy gën a euh, woowee kii di Bira Sène monsieur Sène ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo waaye itam di la remercier ni nga nagoo ñëw invitation salon d'honneur eh, merci beaucoup madame euh, maa ngi nuyu seen téléspectateur yëpp nuyu waa Sénégal nuyu axlu làmb nuyu ñoo bokkal plateau bi di nuyu suma euh, frère Cheikh Tidiane colas et alors euh, du nuyu Doudiane Diécko membre comité national ak euh, Malick Thiandoum du nuyu waa Walf yëpp ah nuyu suma mbokk Saalum Saalum. Mm. Bitté euh, di am mbégte également pour ñëw. franchement parce que yëg-yëg la ci Walf mu nekk télé bu mag ci réew mi am position bu mu occupé moo tax biñ ma wooyee waxtaan bi convaincre ma ma jógee Saalum daal di ñëw. merci di la remercier bu baax a baax dafa mel ni introduit nga ko. Mm-hmm. kii di Doudou Diagne Diecko na président des amateurs de lutte monsieur euh, Diecko ñu ngi lay nuyu di la remercier ci invitation bi. soxna si ñu ngi leen di fay di nuyu képp koo xam ne ni tey yaa ngi liggéey Walf Fadjri di teg nuyoo bi si nga nuyu ñu képp koo xam ne yaa ngi liggéey Walf Fadjri di nuyu tamit képp koo xam ne ni yaa ngi seetaan télévision Walf fajiri di kontaan trop si émission bi. parce que émission bi ñun dañ koy seetaan chaque jour émission bu am solo la di nuyu suñu président muy Bira Sène di ko nuyu di ko baalu àq si koor gi di nuyu Malick Thiandoum di nuyu ki ma janool ñëpp xam nañ ko mm. coach bi nga xam ne moom maa ngi lay nuyu di nuyu bopp di nuyu tamit ki nga présenté sama plateau bi te loolu laay bàyyil ma ñii ñii maa a mais ñii nag ñoo ñoo ñooy liggéey. soo paree nga nuyu leen. bàyyil ma présenté kon may nuyu daal képp koo xam ne sénégalais nga. <laughs> Ah. di la baalu àq surtout ñun waa àq lu maa ngi baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaanal réew mi yàlla def ci jàmm. koor gi ñu jublu yàlla nanguñu suñu jàmm yàlla. amiin amiin jéggal ñu suñu bàkkaar. jëlee fi mbas mi nga xam ne mooy sonal ñëpp. yàlla na ko fi yàlla jëlee si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñi feebar nekk si hôpital yi di leen seetaan ak ñi nga xam ne aussi ñoo fi génn àdduna yàlla xaaral àjjana léegi rek bi may ñëw ñu ngi may wax sama benn nijaay Samsu Kan bu génn àdduna koo xam ne vraiment nitu alxuraan la maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm si barke koor gi yërëm it bépp mbooloo mi mbindeef bu génn àdduna si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Malick Thiandoum suñu confrère yàgg na depuis Sen TV daal di dem fee ci ITV nekk suñu confrère ñëw euh, tey ci salon d'honneur ñu lay remercier bu baax baax ci sa présence di la bàyyi nga nuyoog téléspectateur bi merci beaucoup euh, Khady Sila maa ngi lay nuyu euh, di nuyu Bitey di leen jaajëfal ci invitation bi parce que c'est un honneur pour moi que d'être reçu dans salon d'honneur Euh, mu nekk yi tamit euh, bés bu nga xam ne c'est la première fois bi fi euh, Sidi Lamine Niass jóge ak léegi ñu invité ma ci émission moo tax bi ma dugg j'ai une pensée pieuse pour Sidi ndax ndaxte liggéey bi mu fi liggéey tey boo duggee ci kër gi di nga xam ne il y a un travail colossal bu nga xam ne nit moom moo ko liggéey bàyyi ko fi mm-hmm. Sidi dem na mais suuf mën na lekk suux waaye mënul lekk jëf mois je demeure convaincu que Sidi Lamine est au paradis je demeure convaincu que Sidi Lamine est au panthéon des immortels parce que immortel dans le sens étymologique di terme mooy ku nga xam ne doo dee waaye nag ku dul dee amul kullu nafsin sayhatil mawt mais nit dina jëf lu nga xam ne dina fi jóge ay siècle nit ñi di ko waxtaane te Sidi samp na fi lu nga xam ni ba keroog ñun ñu fiy jóge ñeneen di fi ñëw yàlla na yeex dañu ngi waxtaane l'œuvre de Sidi Lamine parce que li mu fi bàyyi ci ay jëf bàyyi ko fi ci ay kàddu dafay rester éternellement mhm. donc Sidi est éternel mhm. yàlla na ko yàlla yërëm ñi nga xam ni aussi ñoom la fi bàyyi mhm. euh, tey ñu yor héritage bi yàlla na yàlla oyofal yan bi ba fi ñu bëgg yóbbu kër gi ñu yóbbu ko fa te am nañ ci njort bu rafet parce que depuis que mbir yi di dox gis nañu ay changements qualitatif ci Walfadjri aussi bien dans le contenu des programme mm-hmm. aussi bien ci li nga xam ni moo di plateau yi mm-hmm. qualité bi ak qualité ressources humaines su fi ñàkk mm-hmm. mais dans l'organisation du travail de l'extérieur da ngay sentir ni il y une touche bu nga xam ne ñu ngi ko ci yokk parce que ku yokkul danga nga wàññi. Mm-hmm. te ñi fi nekk macha allah ñi ngi liggéey liggéey bu am solo. Mm-hmm. donc ñu leen di ñaanal fi di Lamine buggoon yóbbu kër gi. Mm-hmm. yàlla na ngeen ko yóbbu fu gën kawe foofu donc di remercier ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi ndax Bira Sène du gan ci man. Euh, du du làmb moo ñu boole. bu ñëwee léegi ci waxtaan bi dinañ ci gën wax xuus. ki nga xam moo du jànjee ko suma mbokk la moom tamit du làmb rek moom moo ñu boole. donc c'est un plaisir de partager avec eux le plateau. ñi ci des nag du ma leen présenter parce que loolu sa liggéey la <laughs> mais bu ñu demee ba ci biir. Ah. kenn ku ci nekk ci ñoom am na lu ma seq ak yow. dans le cadre du travail. mu mhm. nekk relation yu rafet. Mhm. Ah. donc plateau la bu nga xam ne duma ma fi jommi. Mhm. du ma fi stressé. te bu ñu waxtaanee ci kanam dinañ ci xam dara. macha allah ñun tam ñuy remercier bu baax a baax ci témoignage boobu nga def dafa mel ni bi tey yow laay bàyyi nga daal di présenter suñu. Euh, euh, chroniqueurs yi chroniqueurs alors damay tàmbali ak sama ndeyjoor mon frère Papa Alioune maa ngi lay nuyu di la ziar di la tatagal ci salon d'honneur di amaan mbégte itam yow euh, plateau jërëjëf Modou ñu ñu ngi lay fay di am mbégte bokk ak yow jotaay bu ni mel di nuyu Khady Silla jàmbaari kër gi naka noonu kenn kum ci doon ku ci ne ñu di ko jox cëram ak wàcc waayam. Mm-hmm. di leen nuyu di leen sargal di leen ñaanal jàmm. gan ñi nu àndal ci salon d'honneur kenn ku kum ci doon ku ñu di ko jox cëram ak wàccuwaayam muy président CNG Bira Sène naka noonu président des amateurs du Dianjeko naka noonu Malick Thiandoum di suñu naataango nekk ci làmb ji bu loolu weesoo it ñuy gërëm suñu soppe ak suñu xarit yépp ndax damay faral di ko wax réew mi ñu fi gën rek lañu yàlla booleel mm-hmm. ngëneel da ci dégg ñett bari teraanga am kóllëre rafet jikko mm-hmm. góor ga noon ku sa daraja jaralul dara doo am ci daraja dara mm-hmm. yàlla nu yàlla bàyyi sunu ngëm ci lépp jërë ngeen jëf amiin merci beaucoup Pape alors mon frère Gomis bi nga xam ne chaque jour ñu xuloo sànq rek maye nañ ko fi maa ngi moom bala ñoo toog plateau dañ koy maye ba pare Gomis maa ngi lay nuyu di la ziar mais toujours del wane ne maa jël da nga ah, ngi lay nuyu di la ci am solo loolu daf ci am solo Cheikh Tidiane bi daf ci am solo non sax loolu sax parce boo nee Gomis rek voilà Cheikh Tidiane bi <laughs> euh, maanaam daf may yee boo nee Cheikh Tidiane rek ci plateau daf may yee. ndeysaan voilà loolu kon Cheikh Tidiane Gomis maa ngi jërëjëf maa ngi euh, gërëm euh, euh, di bokk ci plateau bi jàkkaarloog suñu ay ñetti invité c'est vrai. Mm-hmm. kii nga xam ne moom mooy président Bira di koy di kontaan ci li mu ñëw. Mm-hmm. ba ñëw toog ci kaw waxtaan mu am vraiment loo xam ne dafay toog di ñuy suivre mm-hmm. ba tax na bi ma koy invité c'était pas. Euh, difficile euh, mu kontaan ci plateau yi fi amoon. Mhm. parce que seetaan na ko xool na ko. du jaañ jekko moom euh, yàgg na ñëw ci kër gi. Mhm. xamante nañu ci millier bi ci lépp nag ci côté yëpp maa moom dañuy toog di waxtaan. Mhm. ki nga xam ne nag mooy Malick Thiandoum voyage yu ñuy voyagé yu bare. ci wàllu équipe nationale. mun naa ne yu ci bare maak ngi moom dañuy nekk te dañuy waxtaan. ndeysaan. ci liggéey bi. waaw. ku xam football la ku xam football la ku xam basket la dañ ciy waxtaan kon nag euh, di ñaan yàlla rek lépp ñu fi wax rek mu nekk luy defar waaw dañoo jóg rek pour defar alhamdulilah alhamdulilah merci beaucoup Cheikh Tidiane Gomis mon frère mon ami Abdoulaye Bob maa ngi lay ziar dibéer gi dama koy yàkkamti ngir ñu jàkkaarloo jërëjëf euh, bi tey maa ngi lay jaajëfal Euh, di nuyu Khady Sylla euh, mi nga feggool ci plateau bi ak euh, sama confrère yi ma toogal waaye nag di nuyu axlu làmb ndax làmb tey moo feeñ tey mun naa ne sax atu mi mun na feeñ tey ci géew bi waaw mu feeñ tey ndax boo ah. ne bira seen ne CNG kilifa gi du Njaay Njekko nga xamante ne mooy amateur ku ne amateur ne làmb mm-hmm. ku ne amateur ne bëre mm-hmm. mbër mi mooy amateur mm-hmm. euh, kay reporter làmb ji nag lay doon yuuxu làmb ja lay doon dangaru làmb ja ñu fekk ci tamit euh, journaliste yu xereñ bi ku mel ni Malick Thiandoum sànq rek laata plateau bi jot naa weccoog moom ay kàddu root ci moom lu bëri ndax jot na ma gàgganti ñaax ma soññ ma merci doyen maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, nuyu itamit ñëpp suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan euh, ci jamono ji ci salon d'honneur ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na jàmm yàgg amin yaa rabbi amin yaa Abdoulaye Bob maa ngi lay gërëm di la sant baax kon euh, damay jàkkaarloo ak kii di Salma Ibrahima Fall moom mm-hmm. itam ñu ngi lay nuyu di la ziar yooyu tam dañ lay namm dibéer ji waaw da ngeen may namm mais man aussi maa leen di raw mais c'est un plaisir aussi ma toogee sama kër di leen seetaan ah. mm-hmm. macha allah ci information ngeen ni joxe waaye plateau bu mucc ayib bi nga xamante ni dina fi faral di am durant toute la semaine ma lay nuyu bi tey di nuyu la sister Hadi Sila ah toute mimi di ko nuyu di ko jaajëfal di jaajëfal aussi suñu invité yi di nuyu mm-hmm. aussi suñu confrères yi nekk ci plateau bi mm-hmm. alors mu nekk lu am solo waaye ci kanam tuuti dinañ dalal eh, eh, coro coro bisimilah coro kaay coro kaay kaay yegsil parce que moom itam ci plateau bi la bokk coro yegsil toogal voilà toogal toogal le temps que ñu lay installé takkal la sa micro. voilà mu ngoog le temps que ñu lay takkal sa micro yi itam ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, mbokk euh, téléspectateurs yi euh, kon Abdoulaye boobu wax na ko léegi si la. waaw nee na aatu réeroon tey lay feeñ. te man gëm naa ne aatu feeñ na fi mu toll waxuma tey lay feeñ mais feeñ na ba bari Abdoulaye boobu. waaw parce tey vraiment. ñi fi toog yépp bu ñu waxee ci làmb war nañoo wax ci làmb parce que danoo xam làmb. man nag mbapat laa gën a xam ndax man bëri sëgg laa xamoon ak xam da ngay dugal cabaxal man yooyu laa xam xamoon galgar yeeg déggarti yi yooyu laa xam ndax ab saalum saalum laa te biira seen xam ne ne xam ne li may wax alors euh, damay ñëw ci euh, sunu euh, suñu suñu naataango bi Coro yow itam ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal maa ngi lay fay bu baax bi tey di nuyu Hadisila également di nuyu ñu bokkal plateau di dalal sunu gan yi jërëjëf jërëjëf kon Khady mu mel ni nag euh, dañoo bëgg a song li nga xam ne moom moo di liggéey bi. Euh, waaye nag euh, yenn saa yi dañuy wax ne dañu tàmbalee météo xool fu temps bi toll. ak suba ñi war a woor. ñu teel ko xam laata rek. climat bi climat bi nu mu fa demee parce que dinañu dëgg ci biir réew mi de ci biir réew mi yenn région yi dafa tàng. dafa tàng waaye Dakar moom. alhamdulilah sant yàlla sant yàlla waaye loolu moom dafa mel ni salma daal lañ koy bàyyee. macha allah sa tay baas baax na. <laughs> merci beaucoup maa ngi yow lay jàppale. Adja Salba bisimilah alors comme comme ni ko euh, sama sœur boobee di euh, maam Khady Diéry Fall di defee rek ñu daal di koy feelu. Mhm. ci côté bi daal di présenter li nga xamante ni moo di prévision météo bu lundi 26 avril 2021 donc mu mel ni ci bësu ëllëg euh, jant bi dina daal di fenk bu 6h50 jotee waaye nag bu 19h24 jotee dina daal di soow donc ñu daal di dem rek. ci li nga xamante ni moo di température yi donc fii lee ci diwaanu Ndakaaru bu euh, dinañu am ci lu tolloo ko tollook 24 degré ci suba si waaye nag si ngoon si dinañu am ci lu ko dix 19 degré bu ñu demee ba euh, foofee nga xamante ni moo di ca Thiès kaay dinañu am 30 degré le matin waaye nag bu ngoon si jotee dinañu am 19 degré mu mel ni bu ñu demee ba ngoon gi te xaw a féex euh, tuuti donc foofee ca diwaanu Fatick. dinañu am 36 degrés le matin waaye na ngoon gi dinañu am ci lu tolloog 21 degrés donc foofee nga xamante ni moo di Tambacounda mu mel ni dina xaw a tàng tuuti ndax dinañu am ci suba si ci lu tolloog 37 degré waaye nag ngoon gi dinañu am 20 euh, degré donc foofee ca euh, diwaanu Sédhiou 39 euh, degré la ñuy am le matin waaye nag ngoon gi dañu dinañu am ci lu tolloog 22 degré donc bi tey mu mel ni ca sa dëkk boobee di Kaolack foofee nga xamante ni moo di Kaolack sa dëkk donc matin bi dinañu ci lu tolloog 38 degré waaye nag ngoon gi dinañu am dina xaw a féex tuuti ndax dina dem ba tolloog 21 degré ca diwaanu Diourbel Euh, suba si dinañu am 36 degré waaye nag ngoon gi dinañu am 20 degré donc euh, bu ñu demee ba foofee nga xamante ni moo di Louga 33 euh, degré la ñuy am le matin waaye nag ngoon gi dina xaw a féer ndax dina dem ba 18 degré donc ca Saint-Louis di Ndar Géej donc le matin dinañu am ci lu tolloog 27 degré waaye nag le soir 18 degré lay tollool donc mu mel ni foofu it ngoon gi dina xaw a féer tuuti foofee nga xamante ni nag moo di Kaffrine dinañu am 41 degré suba si waaye nag ngoon gi dinañu am 22 degré donc foofee ca diwaanu Matam 44 degré la ñuy am suba si mu mel ni nag foofu yi dina tàng bu baax a baax suba si waaye nag bu ñu demee ba ci ngoon gi dina xaw a féex ndax dina am ci lu tolloog 27 degré donc euh, ca diwaanu Kaolack 41 degré la ñuy am le matin waaye nag ngoon gi dinañu am vingt 24 euh, degré Tambacounda moom it dina tàng bu baax a baax ndaxte suba si 42 degré lay am mais ngoon gi dina xaw a féex ndax dina dem ba 25 euh, degré Euh, température yi waaye nag dinañu dem ci foofee nga xamante ni moo di géej gi ndax euh, day am solo loolu donc mu mel ni géej gi marée haute yi dinañu am ñaari marée haute benn bi dina am ci bu 8 vingt cinq minutes jotee waaye it dinañu ko amaat ci bu 20 heures 40 minutes jotee waaye nag marée basse yi 2 euh, heures 11 minutes lay la bu njëkk bi di am waaye it beneen bi dina amat ci bu 14 vingt 22 minutes jotee lii moo nar a nekk météo bu suba si bi tey mu nekk lu am solo. ndax euh, dina permettre ñi nga xamante ni ñoo di nappkat yi ñu mën a jël seen ay matukaay bu baax a baax waaye ñu nit ñi nga xamante ni ñoo di askan bi ñu mën a xam bu baax a baax yan jumtukaay lañuy àndal waaye ci suñuy solin sax mën na am mën naa ne da ciy influer alors donc leer na nañ xam naa ne ci kanam tuuti la ñuy doog a ñëwaat ci biir waxtaan bi dinañ ñëw ci à la une bu Walf Quotidien ci kanam tuuti mhm. euh, ñu ñëw ci ci kanam tuuti mun nañ bàyyi ba ci kanam ñu doog a ñëw ci à la une bu Walf Quotidien mhm. mu mel nag euh, dañuy jox lengay ki nga xam ne moom moo ci soobu ci waxtaan bi di daal di bàyyi kii di Cheikh Tidiane Gomis mu sekk waxtaan ak euh, président CNG bu bees tàq bii di Bira Sène waaw euh, jërëjëf kontaan lool bu ngeen ma joxee lenge bi président Bira nanga def. maa Cheikh Tidiane. président dañuy ñëwaat dañuy ñëwaat ci ginnaaw yow ci sa maanaam ci sa.